acca o fog mbin yalan tv i leya nuune rek xaye koy i ɗeetid i ndef me no pikin ɗeetid champion ke champion i simna ziare ong no gon mbin yalan tv gon le fo simangol le mi o mi jangar fay mais bege a nuun a paax a paax simna nuun ndangan sambu aha waxey seek fe wala pare a fulu no pare a fulim koy wax deg fa neex yàlla xa taxu pare a noga jeg kam jung loa rek <laughs> war maka yo wala i dem non non grand ke saqama meke rek entraînement ne ñoom silmang kama yin gan jofandin euh, nama leyata inel gana serasin den mbita ah. a fulero joko njal bo tap ok mbin i simnong siyaare ong champion kon le fo simongol le eh. mbin yalan tv yo ah, mbin yalan nama koy a ñaaƴa gan jofan gan jofan i soɓongo ame to a mabir fo xa tum ba mafrata fo a ɓeem ndax gaan ka wasiro njom ne a ndik njom ne xaya xale saxarena wasa bul quoi kon i mba pare lay gaan xana euh, a a felanga roog yaal inchallah in a ca ino bo i ndew ga i pakala in den maago in Mamady in njom ne soɓu den to wote bo ndik wiin we ka layogu yee gaana waasa non non ren moom inchallah data nga retour ndegum gar no entraînement ɗomo i ndefu ren inchallah kon bo ta ok jege benn champion i simnong siyaare um gon refo simangol le euh, mbin yalan tv ɗetidong xaye eh. Cheikh Ndiaye ne'em saate fa geno neerano Diarekh o neerano a eh. seek wala weta fuliro weta fulim seek yaam a ah, waaɗa doole rek i eh, jega doole kay ne ɓodun i nda maxey ɗatale nak garida ah, woxey ɗatale garida kon i mba cungongo yo woxey gara inchallah i mba cunga maxo garida no miniateur ke sax kon bota yow ci kanam acca champion iso champion ke damma afrayo champion golle fo sima golle fo me genona mbin yalan tv ɗetide num xaye jaman ɓaxom gen saate fe leyel ngara ñakoɓ ngala ndax euh, commencer a seek wala commencer a fulo seek non non commencer a fulim seek koy yaam xar non non in way mbajane dal nda dal taxulim ma rewle quoi nda koy pare a mbapap quoi iwa kon i mbacungong ande waxey gara iwa cunga moone maxey gara jaman ɓaxum ɓiyangalañ wa way gara njal bo ta paam champion gon le fo simongol le mbin yalan tv ɗetidu nuun xaye fo me gen pol ne polo jareex pol sañ geno a seek wala commencer a fulum xa commencer a fulim seek koy yaam xar dara ka fi rek kam ref waaj le rek instant kene moom wax fa yàlla a feleŋ ke la yoxata kon nun école ne daal nun nun ndigal daal xa i école ne xay nene o ga we ndaaw na teen ndigal owena owo ndeta yo maaf rik kelo yo yaam o kiin o kiin fo ne fo no sport in ten rek no leyele fi kene fi kana axa kon i mba to ande waxey gara i wax deg fe te refna moom waaj lamo fe leng ke leyo xata wax deg fa yala i e. bota paam yaaga aca champion champion gonle fo simanqol le fo ke waaɗitoona me ndax euh, fo o lay in mam i soɓong waaw maxey simna nuun nuun wa Mbine Yalane TV in way mene no euh, Pikine école ne gana Seras ngarit u mene koy na xa koor axe rek ngari ɗum en ha koora rek a ah, ƴeetide nen no cele kete jalare tar kete yoɗno wawi nder joom ne kene koye mbay juufo rek saslinger ten garu mene rek e pour ak koyi a ɗeetid dal hakona kete jala hin jam comme xora na ɓay ina ndefu yo i ngar saytu xirana rek no kay saxna no xam-xam fo kay andanena fo kay lelkane ena rek ndamta denno kaga kaga bisigin mene xaye crème ne xaye no pigin ne wiin we leye mbay wasa njom ne fuuda te njom reta te entraînement bo ndiik maxey reta entraînement maxey fuuda njom refu ke andoona yee tam ten ref ke andoona yee ten xijlaxam a xijil bo sax moom jeganga ñaal na fuud ke renuma sax ka taxam sax coono kon mbay doga bota kooro maak gon le fo simanqol le fo me genoona gana ɓaak sek gana ɓaak sek euh, champion xa waaɗiido mene euh, école ne a ah, école ne koy école so i école in fop parce que mbay doga xey me Mamadou Diouf Sokaas oxey me Ousmane Ndiaye lango maak Ndiaye Ndiaye laxa maak xey meen kon école ne école maako ndaxa boy xewo kam lamit oxu lamtuma ta leyame i ndafule ndigal i ndigal euh, pour ndet no euh, terrain le ye anda jega jeg wa andoona yee para a fulero taxu pare erna moom il faut o cung fule i ok mbin yalan tv ɗeetid u nuun bota paam inchallah ace i euh, école ne bo ndiik euh, yaam mbin no le le fo meme saax mbin Yalane TV eetiidu nuun xaye ngambi kama pombaan ngambi euh, ko wat njom ne wala ko wat njom ne ka nan ko entraîner de iyo kam xexemada ceres rek axa nam ga toxa koor axe école ne a koor axe njala i me refna moom cegel a neexe ke rooga fi ka rek yoqu nda calel moom owey mbi'an ngamivota hapa aca iyo eh, na fo mbin yalan tv o internet o fog mbin yalan tv i leya nuun xaye koy i ngar no école no pikin i ne ka gon le eh, présenter wanga xanu ando yaal école ne soɓ me champion fa i leya nuun koy no micro la Midou Diouf no caméra ne Lassouk Diouf o ndokoronga no ngoor ate i ɗeetiida champion fo maak xaye koy champion i simnong siareong gonle fo simanqol le fo me genoona eh, dalnaxong jam content tamit no ken mbi'na parce que tamit wiin mayu mbug'aam xaye to njegiran kon roog fi'angaan nu ngar meeke xane ka i mbar o gidma nuun i gonle fo simanqol le fo me genoona i mi ref gara ɓaak seek gen ta ɓaak seek kon no école gana ɓaak seek i ngaru xaye ok école de lutte gana seras gana ɓaksek iso euh, o moof ɗetago ye lele o leye bara lele o leye fi nene lele o leye fi nana to i wasañ bomne ko moof ka mbina ñotnu wata non wage ref parce que o saso parce que xu maaf rena fi ke fi man njom waas njom fop a ƴufid tokof pour o jang na den o waro genoox assister waaga vraiment i e mbotero yit yam wax dëgg fa yàlla champion mayu aɓeera nami parce que mi ref o maag na den o nan ne Mamadou Diouf gaage e, Ngami Kama oxey meen Ousmane Ndiaye lang o maak oxey meen a jega champion ka andoona yee tamit ngare nan ne hôtel Salim Moussa Seck Baak Seck oxey meen nana a jega Ngor Sokas oxey meen tamit ndaa waaga fop ngariidee i fop na école ne fogu Gan Seras champion fa maak fe andoona yee gàcci ngaalaam na fi ànd ñoom tooxe ma daa leen yoxade yoxe jang na dimanche dimanche i boy maroon vraiment o ndeɓandong o ndutuñ fede faak rek euh, a feetooxoogu anniversaire um 23 ans i kon ande o xaaga gàcci ngaalaam vraiment oxe gara o boy deɓo tamit te andana na xamit vraiment andana na xam wax dëgg fa yàlla i jokonjal ndax waaga lay in euh, xaɓe kong no ndax ko lamin ndax ko jeg u doole maaf ren a paax sax kam lamin njom mu ref na saaxul kam lamin so waagin it ta jarnaam so saaxis a ndamtaam um fi ku ref na koy parce que jege o fiso la mos na o maafa cafa saxa wa limel to lamtangama ten waagax ngo ley nda maafam deux fois non maye euh, in me eetona xotit poids lourd Euh, poids lourd yii ombe euh, ngaylox maga et moxtit poids lourd laga mbira cafo caf saxo refu ret am cafa ka sax nda kam ñak bino roga feet bino poids lourd jang poids lourd maga maga kon continue poids lourd i euh, njom no moƴgo ɗom no comke o njom no moƴo xama ɗom no comkimi manam no njom ɓuɓandi no njom xaw no njom ɓuɓ i ndefa fulu no njom ɓuɓ no jegi moom jom muñ jomno muñgo felno comke o andoona yee comme maafrel ke nuun weeckatinum muk yaam ta felong e jomne mosma moso maafrel to weeckatinum muk mi fa salim ɓurɓaak sek parce que jom naaga moom a jeg na andoona yee vraiment walu inum tamit wax dëgg fa kaaga moom a fel axam i victoire naaga moom a fel axam i vraiment i nama demoru e eh, maafin rek fopandamtam baksekandamtam vraiment jegim dabidden kam fitafu jegim dabidden vraiment a ndamtaxam mbi carrière no jom ko mbi ten ku refna wax la gàcce ngalam nda ke o leya ka nanta nen wo doole of saaxo fare u o le sereer leye ke kiine jeg na kaga xaajta wo retogo mbin yalan fan nok ret mana fan nok ret mana doole of no njom saate fa saax ande a mbapangang koy wax dëgg fa la aato ñakkee koy ndaa saaxo ref njom to saax la moom wax dëgg fa yàlla an mbap a xam a mbugaam rew fo goor maak faxa fop ndamoogu ten rew we sax ka ndamoogu ten i rew we sax ka mbiyoog dee ba dee sax ret maafi ken kon waaga moom wax dëgg fa yàlla jegim ndabid den vraiment i ndax mbira waa geneel ndiiki hop ngeenin koy yoob jaam xar parce que euh, camki pirke maya may laga mbir leng pir ɗik pir tadik saate leng wo fop ana ñemem ta a ka ɗom o jeemanga bo bo bo bo bo bo o fi naga waas ino moom vraiment ka i ngaranga rek tegun ɗatale mi om lamta pir maak i lamta maket tan jot na xam lamta den tan jot na xam lamta den bu jot na xam saxe tan gimam ma ande rek moom vraiment a waaga ref mbir ta ndam tam to roga tax mbañe ni ram dara koy i ni ram dara vraiment combat poyem jegoon no njom xaw ne eh, sept gara combat combien de victoire benn défaite la benn défaite six victoire benn défaite no carrière macha allah an fa an maa E, Mafa Mbodj Diagne Mafa Bara Fass Mafa Douglas Mafa Lirou Diane fa Formane Gueye Tengej bir maak xaga yit Mafa faa bo yaxa anda lem sogo jog te a vraiment a kona den we den daal mhm. anan ma fong bo yarax jom num moƴ ɗom no combat ke o six sept combat ke wiir ne yaraax parce que maaga moom kam fad fadana fad topa qawale fadana fad wo yaay sax na naan mi no kam action ndaa yaaga njom darap andi mose jeg ndaxa ƴowanga neke took um o darap le far far na meexe kam warno xaadit ndara reeɗ u jom ɗomu jom na moom a refit ndar ndara refit u maaga maaf axam jom na ɗoma mbollu ɗum loltadar bo pikin nde kaga ɗoma yen jom ne na yen euh, inorna o ndar ngaroyo mbato daspanonal mbato xembandoox so sogo jeg victoire kene jeg ten euh, victoire ke wo euh, six ke mama dakar ndar Dakar Ndar dina ndiiki comme euh, école ne nuun pir ndiiki ndax wo kilo rok togo fo ensemble ndoki desene mega a Sëñ Tuuba Cheikh Rafal ref pames a cinjene naak ke a ndoka ɓaak ne ɓaak seek ndok nimi mi fo mamadou gaage nen u toki ndat kaga kete ñakna mayero ndokna ko retno tailleur rek to ɗega nong doki nene o dapan fo saafu na o dap dap ndoki mbir dapel tok ke ndik ka ndapel de yaam blouson ndokta yo fo ensemble euh, kilot o xadanga te dapel fo saafu non kaga kaga mbir mbirnde ko umne dappel bappumne dappel sek fe wega yit dap aa tout temps dappel kon wo ko bugole kalero fop ndok of dapan aa ndok es mof sen dappel ndax jega o ɓeyangana mafrel a jegi o ɓeyangana mafrel moom joma ɗoma ɗom ndax xana ɗomo toon perbel koy ndax jega mbir oxa andoona yee koole kaye euh, o xene mi'arefref i kama yemen no ñofelole no jeg fitole jeg fula fa ano ah, leegi ande xa cajo Ibi Senghor a xefak dida parce que tamit oxu fina 2006 bo ndiik gàcce nga la yaakaar fi in koy te ref boy maroon ay ñoom njangar vraiment waaga moom fo xa boya xa teɓaxe andoona yee den defu took den waaga de ñoom Cheikh Ngunjaan ñoom ñoom jamaan baaxum weene fop weene fop moom vraiment i njega ne den yaakaar ka andoona yee wax dëgg fa yàlla alasaan weene fop i njega den yaakaar ka andoona yee wax dëgg parce que ka fadna kat fene nangam waagiro lima taxum lenge xana ɗom xana lima tomto moom kaaga taxum dama dam we andoona yee wax dëgg fa yàlla moom eh, góor we a vraiment i kaga tax ta limel koy ndax pir ke wo ana ndoktayo euh, keke euh, ensemble blouson non non parce que boy maron vraiment nanam xa vocal axe wax deg ne euh, ta roktidna yenga sipanum sipanum ra fede faak mbiro mbiro kaga fela xam wax deg mbir naga nanda a fiya deba deb a ɓaxa mene a fiis mene a ɓax fo jem a ƴuf a yoɗ na ga am kaga mais kaga ref mbir soga kaaga mbir dara refe maaga mbir o nanga nan cip buntu le wara wara ande o xeke ma maaf relo i ande o xene o ma maaf relo cip i ande o moom mooy loolu kaaga moom kaaga moom mbir moom wara wara anda kaaga xu andeer na kaaga rek moom mooy loolu o ref refo ke nar waxa sipa i ande o xeke o ma maaf a jeg ana in i lay ka xaro taktor fo xaro lay ka mbin Yalane TV taktor ka euh, na añuf ka ñof kam faña jango kam de kam faña jango temps de joko njal a paax euh, fi ndang fi ndang rek moom bugaam jango temps o no CNG i eetit ka CNG njom ne ndiki ka ndetoogu euh, ngox tirage no kayit ndiki jegate kaaga fo temps lenu maaf roog na o temps laga mafrata ndiiki xa taxu ke ka ande njom ne ka changer vraiment CNG moom a changer te mayu parce que ino ko maaf roogel bo final njom na fañeran nu coxel te coxon ka fel na nuun to kaga CNG wat nuun deuxièmement amateur ke tamit dimanche lundi ka mbaño jal ka mbaro njali kaga taxu da ngar to règlement den ne koy aɗa yahaminde a jegamata yoqtina par ce que pusir ɓor mi a renganga mi pusir ɓor tax ke um suta leng parce que ko ga'a xa bug na bufik na waro bufik wileroox mbato xe tega euh, caba nono tega caba ñamaak maaga etatiro maaga etatiro a jega ma andoona yee o teganga ma a cafalo xu bufanga xana jego ndiig koy o tolwangaan pour pour pour o seere kaaga ten warulu nu ñaaƴa nqota bol siso xan saaqa kaagaa waral kaaga i nda CNG moom njege njeg ka i layna moom wax dëgg fa yàlla wax parce que we mbir moom wax dëgg fa yàlla machallah xane in de i yaaw a njeg ke ta njeg na moom i kiran leng un million kaaga i njopre fa ten i njopri anga kaaga moom tundana in kam lay me ndiig moom jikkero ceeb fo diwlin kaaga ka xoolaxam o ndax mosa damel no jam mosa xumel bo ande xume xaye jaf leng mam saax luma rew fo an xatito eh, fimela ngot faajuj i ngot faajuj ten mosum to humam bom yeg cer ke me aw maxami te tama faxa ma linga num ne kele mbaay te i me fata nin ta jal i lata fadna yit wat nan vraiment jaf leng laga nu mafru ah, ah. a ngeta deux fois tama fong tama fonga caw jaf lenga ma faxa um sutin jaf leng mafin jurup ndax nu mo bure i afarsa acawa poyum waga ko lemi a cafa ko mafa xam ke yoqna fop mi maaf champion jilas dud ñaan dud ñaan i njopre elisar bikon i njopra a sawa ɗaka mo saxamo maaf ke yoqna fop mi maaf euh, babou xasem babou xasem i mo sanqit jaf ta maafaam samori bu kër mbañ job fois deux un day mos mbi Abou Diallo Ndaalaan un fois mosaan maaf un fois Issa Gourel Issa Gourel imo sengat mi Issa Gourel ndangaan jeen ndangaan jeen ndangaan jeen jeen fa Abdou Ndiaye faya ko den nget cunga den final da ustuwaar ba astel njom na njang jom nana tab joral gaynako gudem sidi gaynako usmana tafir an moso mavrit no champion ke bo yege mavre xaye no jom ubne e eh, c'est que a ciot jotim an tana jotim laga laga arenne ke tan do na sa ka ando parce que kilan leng 200000 laga sa la nang rano do to wagimo agire e eh, xam xes xam hiran jeg 200000 nana ke leyoonga sorta saate fa to laaga saate fa njom maɗom parce que o xetanga fo den demi final te yaaca mbi o mbir saax da yaaca jeg ta ndemo ora tirage ke ngar to kiin laaga laaga tirage jegu laaga par point jege at kaaga tax um moƴo assurer meeke nanga euh, combine oga andim combine ko xetoogel faña ndi ke jomne fag euh, na namo ñowtata fo wiin wiin waaga champion kaaga na leyele anda njomom o liiro o liiro to saaxof a jega ka a mbiyangang e, ba fi ba fi keke it waagiro waagiro ƴakandu kaaga waagiro ka euh, goor rew wa mbapong rew we ka ndamogu teen goor we ndama teen mais xa tax jega te ndiiki pirke maya mayi pirke a maya mayi mi nanam te mbir saate sax jegate Ablaye ka refa no saate euh, Doudou xa ref no saate Midou ref no saate o ref no saate to yaa fo yaaga mbir saate ka jegoogu i kam leyong me raw gadu ka jegoogu poussière ka jegoogu raw gadu jeg poids léger jeg poids lourd jeg pirke ndiiki it ke taxna te yoqit ten refu mbir ko waro fi raw gaddu bo fañtel raw gaddu sutoox maaga gar cafake bo fañtel a caf sutoox maaga gar poilur yaay fop koy poilur moom fopom xatida meen mi fa nekk fi am kaaga ten taxu kon jom nu damtona damit andam na gara nu waagona waago fi kam o langole waxa dama waro ma fa andam mais mooma mo fa andam ye feke na jeg ni jangatan mayit wax dëgg ley me moromes jangtiran nda a jafeñay naga taxuna faas a jega arène na layoge ne Émile Badiane ndiiga fad'anga bo pormato mboor maaga i ndefoogu combat fanweer combat ɗik o jeg ka cooxel fanweer o maafanga cent cinquante o coox kel o o xeke maak o coox euh, soixante denci akaga ba fadda ay 11000 13000 kaga combat podɗum o jeg ka rewa firfirduɓe xana ngar ñoolawe xana xana ngar fulane xa duklura xana ngar sereer ke xana ngar faal we xana ngar ten taxu i mbaag njom mbap andero fo me i ka yengida andero fo ndem si yàlla yaamu saar rofange yaam nanaam te o fa reedu i yaamu moom wax dëgg yasamrogo yaloxe a yirmin taxatan malaka paxara vraiment li ta tag wa yam kaga taga xoreɗu parce que ne yamu ñaktina awa leyele ka xaad ndak no ndak yiif in na siñu borom nda o xaaga i njeganga ka fadna 6 mois leerong no lang de nda nda moom morom in xana ɗoma ina maafa in parce que roga fi'atan xam xam ta waag an ta waag a jangnitin ta baftugo ginaaw raay i ngetida bafta pikin i ngetida ta jang na in parce que laga sax a wasidata i kene de moom wax ñowaan ma xar bug o lamit to yiif in mbadida taaga komo kin mo to i lamtirango ten i ten refu ye ngoor ke a jega changement njom ne a jega o njiriñ a fela amateur ke maya fufudu maya fafak we o mbeconxe fop ambiance moom wax dëgg fa a mafrangan den na deno a mafrangan na deno fata lamtikuyu maak ke mbat maak ke a sipaxa canax den a mafrelo i kaga dongo bug ma bugo ñaax mbes ke mbes fata nges maak we a lamtiko a mafrikelo ko roga tax njom ne jega jeg changement njom ndiki xalalo la njoma fañ celino kiin xane refe ndiiki i xarolay kambin yalan tv fe ngarna mene e lool koy jegim dab dum parce que tamit vraiment wax dëgg fa la e nu mu ñaana bug muñ na bug ndaaro xaye fi un ñaana naa nun kenn bug na yasam rogo yalo fi kaaga kenn bug na yasam rogo yalo fi kaaga fo yaakaar nun fop fo kenn bug na tout i i jokonjal a paax euh, i no ngogu fo TV E, etude o champion koy eh, eh, ngar u no école ne Pikine etu meen champion fo maak e, e, ten taxu i ñofo profiter sax anin o gidim ka coté saaxof gidma saaxla in tout tamit gidim école de lutte Gana Seras école de lutte parce que école de lutte yoobee wartangaa bo mawrel bo wasndiom wet école de so wi mawritogona tout a ngara assise o ngo a ngara assise o a ndamtango vraiment jegim ndabdin ndabidden o nanne Moussa Seck Baak Seck Mamadou Sokas Ousmane Ndiaye lango maak ngo maak Thiaw we ngareer na tout fop maxey gidma den to yakara den vraiment we ndamtaxam to wootim i doo bugg euh, roi des arènes koy buggum incha allah